sunnatan an haadihi ci ci turu commune bi euh, ma teewal isbu tarxiya ak ay jëwriñ yu bari ci biir isbu tarxiya Touba ca kanam it dafa mel ni ñoom itam desewuñu dara ñu ñëw ànd àndin woo xam ne ba nga ñu joxee ndigal ak bisub tey taw feexi sëñ Touba am na ci ñu doon liggéey na ak juróomi commission juróomi commission yoo xam ne li jampoon mooy fexe ba ndox mi génn ci kër yi ak fexe ba tàmbalee yóbbu ndimbal yi ñu dem ci nit ñi ñaari objectif yooyu lañ tegoon suñu kanam euh, di ci dox euh, ba fi ñu toll nii taxawal nañ juróom benn euh, magasin yoo xamante ne bu ci ne sol nañ ko tàmbali nañoo séddale ci xibla yi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy juróom benn ci ci ci ci mooy ñeenti boxu dëkk bi leneen li ci desit mooy fexe ndox mi génn ci kër yi ñoo ngi ci liggéey boobu léegi ci pompe yi léeg doon nañ toll sax foo xam ne dañuy yaakaar ne war nañoo dolliwaat ay ay ay récolte ndax mbir pour mën a pour mën a dimbali nit ñi waaye lu ñu xalaat rek day mel Sëñ Tuubaa da koy indi loolu wane na ne kon euh, taxawaay bi ci wàllu génne ndox mi euh, waa dëkk bi ñoo ngi ko ànd ak ñoom équipe équipe technique boo xam ne muy waa Tuubaa ca kanam muy waa commune bi muy waa waa waa Hizbut Tarqiyyah ak tamit ndawi dëkk bi bare na ci ñoo xam ne takku nañu taxaw noo xam ne dañuy ànd ak ñoom liggéey bi ndox mi yàlla def na mi ngi wàññeeku barab yi nga yi mu gën a jafee rek xëy na mooy barab yoo xamante ne day yoonu ndox te ñu ànd ko sapeur te boo ko génnee doo xam foo koy yóbbu loolu moom mooy mooy waral ñu koy xool ak di fexee réguler diggante fële nga xam ne mooy Kër Ñang ngir yëf yi bañ a amee doole noo xam ne day gàllankoor wax bi ñu doxee ci loolu nag nga xam ne mooy ñaari farate yi jëkkoon muy génne ndox mi ak euh, tàmbalee séddale dund bi ba dox tuuti dafa am leneen loo xam ne daf ñoo dab mooy nan la ñuy fexe ba lu mel nii tamit bañ a amaat lépp dëppoo sa ndigal loolu la ñu xam ne kon xalaat du mën a ñàkk ak experts yi nga xam ne naka jëkk dañoo nekk ci yoonu murit waaye kenn ku ne daan liggéey ci sa wet jot na kon ginnaaw sëñ bi boole nañu mu boole sunuy xalaat mu doon benn loolu itam ci yow mi la bàyyi euh, kon kon kon bi ñu xalaatee loolu démb lañ doon def ndaje mi jëkk ci indi ñu bàyyi ko ci Touba ci kanam seeni borom xam-xam yoo xam ne yàgg nañ cee liggéey indi ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ci commune bi indi tamit ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ko Hizbut Tarqiyyah waaye nag dolli ci ñaari kuréel yoo xam ne ku ne xam na ne ay boroomi xam-xam la dajale boo nee Touba xepp ñoom yàgg nañ liggéey ci loolu te dara ump la ci ndax luñ ci mës a defit dañ la koy indil euh, waa tamit waa waa Jabha di kuréel boo xam ne Sëriñ Muntaxa moo moo moo leen utaloon aw tur euh, di ñoo xam ne na nañu moom ci université bi ba liggéey bi étape bu ci ne ñu def ca loo xamante ne mooy wane na yoonu murit expertise bi am na njëriñ ngir sëriñ bi liñ koy liggéeyal mu am qualité loolu kon ñoom lañ dajale woon muy juróomi kuréel ñu daje fi ak nat ñoo xam ne seen yéene ak seen xam-xam lañ am rek ñëw dégg ko ñëw ànd ko ñun tey nag ñoom dañoo tàmbali woon seen liggéey ngir li ñu tuddee plan d'urgence bi nga xam ne fi ñu toll ni war nañoo wax lu tax bu déwénee jafe-jafe bi bañ amaat te li ñuy defee ñu bañ koo defee noo xamante ne day mel ni dañoo jàpp ne dañoo yor suñu état wu bopp mel ni que euh, du ñu liggéeyandoo ak structure yi nga xam ne état bi moo leen fi teg ñuy liggéey loolu ndax foofu boo fa demoon ay bi dong nga fay fekk kon loolu moo tax li ñuy def dañuy fexe ba techniciens yi liggéey seen liggéey ñu indil la ko la nga xam ne tamit état moo koy def moom mu def ko bu ñu ko boolee mu doon loo xam ne Touba dina ko mën a jëriñoo. commission stratégique lañ ko tuddee boo xam ne mairie da ciy joxe juróomi nit. isbu tarxiya joxe ci juróomi nit tubaa ci kanam joxe ci juróomi nit tubaa xëpp joxe ci juróomi nit joxe ci juróomi nit loola bu lii amutoon kenn ku ne ma nga fa ne di yëngu te ni ñu war a lëkkaloo amutoon kon suñu suñu borom dimbalee ba ñu lëkkaloo te lépp ñu ne buñ fi bawoo ak luñ mën a xalaat nañ xam ne mairie bi moom moo jabote ñëpp ñu am système bu ñuy teg di mu jëm ci ndox mi urgence bi ñu boole tey mooy ndoxum wal mi ñu ne ñi ne ci ndox mi ni ko sëñ bi waxee nañ leen fa génne dina leen wutal fu nu ne ñu wone yoonu ndox yi ba kenn dootu fa ne ndox mi mën a wal tali bu ko téye ñu dog ko mu ron di dox jëm ci saalumu dëkk bi bu ko defee ñii muy gede muy suraak muy muy daaru euh, minan muy muy muy xayra bërëb yi nga xam ne yëpp di kër ñang ñu fexe ba yooni wal yooyu te ngeen gis ngiraa neen nam ko def daa danoo woon fa ngiraa neen dëgg-dëgg sama yoon fii la ca kaw sara noonu la ñu ko wone ca pencu maam jaara noonu la ñu ko wone kon ñun dañ ne nañ bàyyi pompe bi du ñu génne ci dëkk bi mënoo am dëkku un deux millions ñuy pompe seenum ak yaatuwaay bi ñu continuer di yaatu ñu koy pompe li nga xam ne science moom la joxe dala ne ndoxum wal ak ndoxum yàqu ci kër fexeel ba jaarale ko ni suñ borom tëggee mbartalam yi foo ko mën a joyanti boo demee bu mënta dem nag nga pompe mu romb loola nga bawaat ko mu dem kon xam-xam boobu lañu lëkkaloo nii ngir dox ci démb bi kuréel gi demee ci sëñ Bas dafa xam ne nañ dox ci urgence lu ngeen mën a xalaat dafa am lu tembare mooy ndox mi ball ak ñii ci biir ndox loolu tënk nañ ko wa fi mu ne bu ñu génnoon tey mën nañoo jël dossier nekk ko jàpp kenn ku ne ca xam-xamam fa jëm li ñuy wax pool group def nañ ko ñuy dox ci urbaniste ak xam-xam yani mel ñu boole leen jël kilifa teg seen kanam ñiy dox ci assainissement hydraulique ñu boole leen kay kilifa ga ñu teg seen kanam euh, infrastructure génie civil kay kilifa ñu teg seen kanam environnement ñuy kay kilifa ñu teg seen kanam euh, géotechnique euh, ak topographie géomatique kay ñu boole leen kay kilifa ñu teg seen kanam léegi ñun li ñuy li ñuy coordonné ñooñu ci wàllu technique ndax loolu day dellu dañuy delloo ci bureau d'étude ni muy doxe ay département lay doon nekkul ne ñii bu ñu xasee def pul ku ne day toog fa nga toog benn liggéey bu jógee lu mu soxla ci ñii ñu tudd ci spécialité ñuy àndandoo liggéey liggéey boobu mooy tax mu matale noonu la ñuy liggéey tàmbali nañ ko ba mën nañoo wone dara ci ndoxum wal mi tàmbali nañ ko ba mën nañu wone dara tënk ci ndoxum naan mi tàmbali na ba corniche u Cheikh Abdoul Ahad bi nuñ koy jëfandikoo ba mu am transport en site propre moo xam BRT moo xam lu mën a doon ba tram yeeg yooyu di jaar ñëw ci jumaa ji yooyu tënk nañ ko ba melal ko ba téye alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawdi ridwaani wa tamkin ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi di jéggulu ca kàddu gi ndax xam naa coono yu bari fan yi moo ko andi di leen jottali kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ba mu motti mboolem li mu bëgg liggéey Serigne di xam la ne it laa tafaalu shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi xaburi shani bi ci guddi rek ginnaaw ba ngeen fa jógee jot na ma téléphone ci mbir yu ñu doon waxtaane ma tàmbali ko nett ne ko ñëwoon ngeen fi mu ma ci lool nag ne daal li ma soxla rek mooy yitte ji te ji gis naa ko ci moo tax bu ma soñoon na nga xam dara lu ma gën a jóor yitte jooju amut mooy seen seen daje bi tey fii daal lii sama lii sama itti dëgg dëgg dëgg dëgg ndax sumb yu bari na ndax xam naa sumb juma ji waaye am na dëkk bi it dama ci am yeneen sumb bu ma ci bëgg a def loola nag dama bëgg nga jiitu ci ànd ceeg borom xam-xam yi murid yi nga xam ne yëgul wallahi azim ndax Sëñ Tuubaa tëliwul dara loo ne sëñ bi am na ko kon ne lii gën a nekk sama iti baatit bi Sëñ Tuubaa aar na ko noppi na ci waaye saahir si nag laa bëgg fu borom xam-xam yi murid ñu liggéey ci tàmbalee ko nag ci jumaa ji muy ba fu war a àgg mu àgg fa loolu loolu moom du du sama xalaat du xalaatu kenn loolu ndigalu sëñ bi la ma ne ko nag yàlla def na sax ñoom amoon nañ xalaat ñëw fa ñëw gaaw mu ne kon loolu daal mooy itte ji ma gën a ñor na def nag yitte te te jiitu ji taxaw ci seen kanam ngeen ñu fexe daal tàmbalee ko ci jumaa ji muy wër ba ba ba ba fépp am sécurité te fuñ ci weesu mu doon loo xam ci ci dellusiwaat suñ moom foofu la ci waxoon kon loolu moom yéen jàpp leen ne li ëpp solo ndax xalaat baax na waaye xalaat moom la ci ëpp solo. mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa lim xalaatal boppam bokkut ak ñun ñi ñëpp li ñu xalaat ñun mën nañoo xalaat ci xalaati adduna rek wala lu jub ci suñu xel waaye bu dee lu jóge ci moom rek ndama ci am moo tax nag sama xel di di door dal. Blaar ke mi mën na at woon naa ko ndax boo jaaxle woon naa ci nab bi ne ko nag commune bi defub itit fexeel na fexeel ba defal ñu ititub li wër jumaa ji. Waa ci kanamit it nañ fa ci. jamono yu baraxlu amoon ci xalaat ci réseau bi waa Touba ci xeppit amoon nañ ci xalaat waaye nag li nga xam ne mooy li ma gagloo mooy murit bu ne dangay am sa xalaatu bopp eh, daal sos sa kuréelu bopp loolu lu sotti du lijjanti mbir da sëñ bi daal waxoon daa waxoon ne ay nit buñ seqi biir balañ ko balañ ko mën a jariñu faw ñu takk ko ba mu def ne say ñu doo caa mën a jariñu doo caa mën a lu kuréel yi bari bari dañoo war dajaloo buñ dajaloo wut sëñ bi du ci mën a sottal dara man mii mu doxale seen seen diggéey yéen itam li def mooy di diglu rek mu jàll ndax kii di kii day dikk indi xalaat bi kii indi xalaat bi xalaat yi yoo te ñun du ñuy ingénieur xamuñu am na ci la mënuñ ko xam loo xam-xam am na ci la mënuñ ko xam kon nag yéen ñi ko seq eh, jër te gaawtoo doonte fii ak weer la sax ci gën a jàmp daal mooy fexe ba li war jumaa ji moom ñu aar ko ñàkk ko bi ci biir waxam wax na ma ne nañ fexe ba tàmbalee ci jumaa ji di dem fuñ ci am assainissement ndox mu baax ba noppi ñu fex ko fex ko ba def ko ay xam naa ay dal la bëgg wax ba suuf dootu fa amati nee na nañ ko tàmbalee jumaa ji ba mu wër dëkk bi ba fu ñu weesu dal dootuñu ko laalte loolu moo ko ci lam kon nag bu yàlla defee tey jii ngeen ñëwaat fi dañ leen di sant bu baax di ñaan itam liggéey bi ñu fexe ba di ko def ngir jëm Sëñ Tuubaa ndax sëñ bi daal neewoon na Sëñ Tuubaa dindi ci ñu dindi na fi yàqu seytaane loo fa gis mu yàqu rek yàqu bakkan la kon nag ku ne bu bu kenn indi xalaat kenn indi xalaat xalaat bu jubu ci yow nga ne naa bàyyi ndax mbooloo yu bari looloo ko tas na nga xam ne comme yëfi mbooloo la boo amee xalaat bu gën a jub itam te la ñu ëpp am beneen xalaat yooyu da ngeen da ngeen nangoo bàyyi sa xalaat. na diisoo mënta ñàkk alxuraan na ko santaane bu demee ba ca bu mujj ba nag du yéen du man sëñ bi képp am dogal bi képp ku fi nekk di sëñ Tuubaa itam loo dugg nam nga ci am kon ñu ngi sant bu baax di gërëm wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an mari